Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. te man mii di wax xam naa sa bopp yow mii di xam nga sa bopp yow mi amoon alal am teraanga am sutura nga jëkk ba nga yëg ne moment bii yaa ngi dund ay jafe-jafe yow xam nga sa bopp yow bu fekkee bi nga amee da ngaa jalgati tubalal yàlla. dara tegul ko loolu wutal ñaan yu lay defar sa yaram pour sobe bi dañ wutal turi yàlla waxoon naa ko ci astaxfirullah saxoon 1947 fois astaxfirullah astaxfirullah astaxfirullah 1947 yonent bi ne saa yooy jàppee ba sel toog benn place ci lu tenku wax suñu borom lii ma la boo fa jógee mu raxas la soo ko saxoo mu génnale ci milieu bi nga nekkoon tegal la ci raay bi mhm. affaire bi kariwe la rek wala ngiro yaay doo ko dugg waaye yàlla moom du lor jaam du ko sonal du ko yàq kon na wut ñaan te boole ko tuub ñaan ku mu yaakaar te diglu ko lu mu ko wax mu def ko bu ko defee kumute bi wala tëju bi dana dañ ci moom moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam ku ñàkk jëkkër la moo xam ku ñàkk jabar la moo xam ku ñàkk place la moo xam ku doon liggéey ba faak rek daanu ku wuti même wuti kayit tubaab bi bañ la sax sellal sa ñaan yàlla rek